benn korent saar léegi nag ci li jëm ci ndimbal li ñuy sàkkal gaay yàlla yi def leen li ma tëral ci mboolooy ñi gëm te nekk ci diwaanu galasi bés bu jëkk ci ayu bés yi na ku nekk ber lu mu àttan denc ko ngir saa su ma dikkee ñu bañ di wër di laaj xaalis su ma dikkee dinaa denk seen xaalis ñi ngeen tànn yónni leen Yerusalem boole ko ak bataaxal su aajoo ma demal sama bopp kon dinañu ànd ak man gannaaw bu ma jàllee diiwaanu Masedowan dinaa ñëw ci yéen ndaxte fas naa ko yéenee jàll man na am ma yàgg ci yéen jombul sax ma lolli ko fi yéen noonu dingeen taxawu sama yoon fu ma mën a jëm ndaxte fii mu ne bëgguma leen a gis rekk jàll waaye yaakaar naa ne dinaa toog ci yéen ab diir bu neexee borom bi ba tey dinaa toog fii ci dëkku efes ba màggalu Pentecôte ndaxte yàlla ubbil na ma bunt ba mu ne làññ ngir may def liggéey bu mën a am mujj gu rafet te noon yu bari bëgg gàllankoor liggéey bi bu leen Timote ganesee fexe leen ba bu mu am njàqare ci seen biir ndaxte dafay liggéeyal borom bi ni man kon bu ko kenn xeeb na ngeen taxawu yoonam ba mu dellusi ci man ci jàmm ndaxte maa ngi koy xaar ak mbokk yi naka apolo sunu mbokk mi nag moom xiir naa ko ay yooni yoon mu ñëw ci yéen ànd ak mbokk yi waaye fi mu ne dëppawul ak coobareem dina ñëw saa su ko manee farlu leen te dëgër ci ngëm di góor góorlu te am pasteef lépp li ngeen di def def leen ko ak mbëggeel xam ngeen ni Estefanaas ak njabootam ñoo jëkk nangu xabaar bu baax bi ci diiwaanu Akayi te ñoo joxe seen bopp ngir liggéeyal gaay yàlla yi kon nag mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen nangul nit ñu mel noonu ñoom ak képp ku ànd ak ñoom ci liggéey bi bi ma estefanaas ak fortunatus ak akaykus seetsee bég naa ci lool taxawal nañu leen ci toppatoo bi ngeen yéene woon ci man te tële ko seral nañu sama xol ak seen yos itam kon fonk leen nit ñu mel noonu mbooloo yi ñi gëm te nekk diwaanu asi ñu ngi leen di nuyu akilaas ak pirsil ñu ngi leen di nuyu bu baax ci borom bi ñoom ak mbooloom ñi gëm tey daje seen kër mbokk yépp ñu ngi leen di nuyu saafonte leen ak xol bu laab man pool maa bind nuyoo bii ci sama loxo bopp képp ku bañ borom bi yàlla na ko yàlla alak borom bi ñëwal na yiwu borom bi yéesu ànd ak yéen bëgg naa leen yéen ñépp ndax suñu booloo ak yeesu kirist